yàlla na nga ma baal yow laay yow yaay baalekat bi tey yërëmekat bi rabbi xfir lii wa tub alayya innaka anta tawaabu rahim rabbi xfir lii wa tub alayya innaka anta tawaabu rahim xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na ngeen ragal yàlla seen boroom te ngeen julli seen waxtu juróom te ngeen woor seen weer te ngeen joxe seen asakay alal te ngeen topp seeni njiit kon di ngeen tàbbi àjjana yi seen boroom xadis bi at yi nettali na ko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

waxtu jàpp wi 5 heures 51 juróomi waxtu wi tegal juróom fukki simili ak benn waxtu dog wi 19 heures 19 juróom-ñaari waxtu wi tegal fukki simili ak juróom-ñeent jant bi dana fenk 7 heures 14 juróom-ñaari waxtu wi tegal fukki simili ak ñeent di so 19 heures 15 yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen amin